ba tey mën ngeen ko taaxirlu bu 17h euh, jotee en direct sur 313 digital muy conférence de presse wala point de presse bi nga xam ni euh, ki di assan Assane nga nekk directeur général euh, bu Dakar Dem Dikk dina ko daal di amal dinañ si dikkaat léegi-léegi alors moom moom ba tey dañuy des ci wàcca élection législative yi ak déclaration bi nga xam ni kii di maam Diarra Fam nekk responsable politique jiite li nga xam ne nag moo di ab mouvement nekkoon aussi député ci e législature bi ñu xamal élection législative yi moom euh, daanaka dafay votel euh, parti bi di euh, Pastef naka noonu aussi gis nga communiqué bi nga xam ne moom la Pastef ginnaaw raay daal génneel ni ñoom carrément d'accord nu ci choix bi nga xam ni moom la Mame Diarra Fam def maanaam àndunu ak moom parce que ba ñu waajal élection législative sa jamonoy manifestation yi moom moo waxoon ni carrément ñooñu ñooñu woon pour attaquer li nga xam ne nag moo di këram yoroon ay cocktail molotov ginnaaw raay ginnaaw ba Mame Diarra Fam waxee ni dafay votel parti bi di Pastef si législatif yi. waaw man dama jàpp ne communiqué boobu sax moom moo mënoon ñàkk. Mm-hmm. Eh, communiqué bu Pastef ginnaaw raay noor boobu. Mm-hmm. moo mënoon ñàkk parce que c'est-à-dire euh, li ngay wax. Mm-hmm. ak kee la mu def xam nga tey jii une personne qui dit man et d'ailleurs damay gis parfois ñuy joxe. information yi di wax ne Mame Diarra Fam rejoint Pastef. Mame Diarra Fam n'a pas rejoint Pastef. rejoindre Pastef mooy quitter sa parti dem bokk biir Pastef nekk militant wu Pastef. Mhm. donc Mame Diarra Fam n'a pas rejoint Pastef Mame Diarra Fam dafa jël décision ne moom day soutenir Pastef ci élection législative yi ñu jugee. Mhm. je pense que la ñu wax noonu mën na nekk dëgg mën na leen def lu leen naqari mën na leen tuumaal mën na def leneen ak leneen mais une personne bu jël décision ne man élection bii damay voté Pastef mënoo ko ko tere. Mhm. donc c'est-à-dire bu fekkoon ne tey dañoo ne Mame Diarra Fam dafa war a ñëw bokk ci biir Pastef. su boobaa nag di nga taxaw nga ne ah kii kat warut a a euh, bokk suñu parti parce que léegi léegi lii wala doxalinam nangam defoon nañu ko on pourra comprendre mais une personne ku jël décision ne damay jàppale Pastef jàppale ku ne yaa moom jàppale ko la ne nga koy jàppale. vote mais yow soo yoree sa parti même bu ma la bu ma xamante wala ak yow mën naa dem suñ koñ wax leen voté leen pour si la loolu ça veut pas dire que man ak yow dañoo ànd. donc man parfois itam damay gis des communiqués yoo xam ne man jàpp bëriwul sens quoi. Uhhuh. léegi nag ñoom am nañ lu leen naqari am na lu mu leen def mais la mu leen def noonu moom bu jëlee décision ne dafa bëgg a jàppale Pastef est-ce que da ngeen ko ko mën a tere. Uhhuh. mënuñu ko ko tere. bu fekkoon ne tey dañu dafa ne dafa bëgg rejoindre Pastef. Uhhuh. su boobaa nag Pastef ñoom ñooy wax ne ko ah sëñ bi yow kat suñ parti mënoo fee dugg. wala kat nangam ak nangam. mais une personne qui euh, prend une décision pour dire que ñii laay jàppale. Uh-huh. ñii laay voteel ñii laay def campagne pour nit ñi voteel leen. Uh-huh. loolu ça n'a aucun rapport ak le parti Pastef. Uh -huh. donc soo si génn di wax ne moom daf ñoo jii ñoon ko ay cocktail molotov même si yooyu c'est des choses à condamner yoo xam ne kenn du ko rafetlu. Uh-huh. lu ñuy ñaawlu la mais nag. cest à comme ma parfois communiqué bi ngay génn et puis nañ def très attention ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci euh, commune ak département ak yooyu. bu bu munta ñàkk ba munta ñàkk mën nañ def communiqué wala mu nekk une situation mais itam yenn communiqué yi ngay expliquer loo xamante ne man gëm naa ne léegi ñoom communiqué bi je me demande lan lañ si jublu lan. waaw ah, parce que ñoom il faut qu'on interdise à Mame Diarra de soutenir Pastef. non non parce que ñoom nee nañu mënuñu battre ak moom campagne. parce que foofu nekk na lu am solo. parce que imagine toi da ngay fàttaliku rek un peu xoolal mbir mi fi mu demee dañuy waaj élection. ñan ñooy battre campagne battre campagne ñi bokk coalition ñoo koy def. non moom dafa ni peut-être tey jii Mame bu ne day soutenir euh, Pastef moom peut-être dina ay otoom ànd ak ay gàngooram wàcc battre <laughs> campagne. loolu moom ñoom loolu wax si communiqué bi. <laughs> loolu moom am nañ si droit man lu ma wax si communiqué bi man loolu laa expliqué. ñoom nee na loolu duñ ko def. ba pare aussi ñu ni. beneen facteur mooy au-delà ci parti bi di Pastef moom ki nga xam ne moo dëkkoon Pikine ñàkk bakkanam Modou Gueye si je me trompe pas ci élection bi ñuy waaj élection présidentielle yi moom jàpp na ni moom bokk na ci ñu voté pour ñu reporter bu donc ñoom tey jii lu tax nu bañ ànd ak Mame Diarra mën naa wax ni nekk na ay facteurs yu bëri. oui xam nga si la. Uh-huh. campagne campagne. Uh-huh. je soutiens diw taxul nga bokk ci campagne bi. déedéet da ngay bokk si biir coalition bi. Uh-huh. une coalition moom mooy mener une campagne donc Mame Diarra Fam deful dara si campagne yu Pastef. léegi nag récemment ci cadre Yewwi Askan Wi wala intercoalition Yewwi Wallu. Uh-huh. moom bu bokkee Wallu moo ko waa PDS ñu def intercoalition mun na dem ci campagne bi. Uh-huh. mais lii dama ne la c'est décision boo xam ne solo si bëriwul. Uh-huh. maanaam yow en tant que ni yow yaa engagé wu ne man damay jàppale liste Pastef. ça veut pas dire que yow da ngaa bokk biir Pastef ça veut pas dire que da dem campagne bi ak waa Pastef. donc ñoom moom loolu c'est leur droit le plus absolu ànduñu ak si kenn mënu si dara. et je pense que euh, c'est-à-dire yoo xamante ne mën nañ toog xam nga parfois jarul coow. Mhm. nit ki jug na nee na day soutenir moom la jël tranquillement yoonam ñi mu mun a waxal mu wax ak ñoom wala mu campagne ko biir këram wala mu campagne ko biir koñam. Mhm. mais ce qui est sûr mooy campagne bu jotee ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ñoom ñooy la coalition. ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci liste Pastef ñoom ñooy ànd ensemble mener li nga xam ne ni moom moo di moom moo di seen campagne. Mhm. et parce que ñoom ñoom aussi si jeexantalu communiqué bi ñu ngi naan ñu ngi déglu Pastef. Pastef lu muy wax si loolu. ah xëy na peut-être mu jox leen. mu ne ko non bu leen ñu jàppale sëñ bi dafa am loo xam ne amul sens ba nga ah. war a yëkkati kàddu di ci àddu. mooy koo xamante ne démb ak bërki dem li ngay wax nii ay loi yi fi xewoon ay loi d'amnistie ak yeneen mais sénégalais yi fekkee nañ ko waa Pastef xam nañ loolu nu demee woon mhm. léegi yow boo demee ba tey jot nga ñëw taxaw nga ne yow da ngay jàppale liste Pastef mhm. kan moo fay génn naa la non bu ñu jàppale bul ñëw si ñun kenn du wax sax dañ lay bàyyi si biir rek mais yow boo seetloolee sa bopp yow boo doxee quelque temps yow di nga xam ne ñii ngay waxal nii ñoom ñu ngi seen bopp mais nekkuñ si yow mhm. lii du transhumance bokkul si parti bi yow yaa jël décision loolu ça n'engage que nit ki ko def mooy man je soutiens cette liste. Mhm. soutenir une nag ça n'a rapport ak am lien ak waa liste ba wala ànd ak ñoom ci campagne wala bokk ci biir parti ba wala bokk ci biir coalition ba soutien la soutien. Mhm. diw man su ma neexee ma toog fii xool nit ne maa ngi koy soutenir te mosuma kaa gis. léegi yow tey bu Macky Sall di ko nangu. kan moo koy faale. non dama lay dama lay damay supposé rek léegi yow di ko nangu. j'ai problème ci loolu xam tax. Mhm. moom eh ne quelques cest à moom dafa c'est des choses yoo xam ne soo koy def yow mi koy def da ngay foog ne da ngay nax nit ñi alors que sa bopp ngay nax yow. mooy da ngay dem politique moo tax ma ne la acte yi fi xew dem ba dem ñëpp gis nañ ko. et ñoom lii ñuy cité nii am na yu fi xewoon euh, tuumaloon nañu ay dañ doon jéem a taal këram ak ay cocktail ay yeneen ak yeneen. loolu ñëpp fekkee nañ ko may dama ne. cette décision moo warut am ampleur boobu bañ siy def ay communiqué. mais mais mais moom moo fàtte démb nag moom xaju fii. waxuma ñu fàtte démb de waaw déglu rek mënoo mënoo bokk ak nit koñ. mu nekk député bokk parti bi di PDS Pastef nekk ci ay jafe-jafe naam diggante Ousmane Sonko moom ñëpp ko rafetlu woon parce que yaayu Sonko noonu ko doon wax peut ay circonstances tax nga wan ko li nga xam ne nag moo di ginnaaw naan Ousmane Sonko da ngay xaar yëkkati ay kàddu teg ko ci parti bi di Pastef tey nga ñëw ni carrément ñoom ngay soutenir ci élection législative man je pense bien que y a confusion entre li nga xam ne nag moo di ci ñaari mbir mhm. mhm. kenn ku mu concerné ku dul moom jëmmam. ça concerne pas le parti Pastef tey soo doon dem bokk fi Pastef xam nga dama bëgg a bokk Pastef ñu ne la ñun nangul nañ la ne bokk wala nangu ñu ne la bul bokk mais décision moo amul solo soosu fi maanaam fi gars bëgg a yóbbu décision wu je soutiens tel parti tel liste c' comme si man moomu ma xëy suba léegi xanaa kon su boobaa chaque jour ci dëkk man su ma yeewoo ñaata nit nga gis ñu def publication ne dañuy soutenir Pastef mhm. bëri nañ kan si je pense Mame Boye Diao def ko. Mame Boye def na ko. est-ce que léegi xaaroo foofu beneen communiqué wala bokk dañuy toog bu kii waxee bu dee d'accord ñu ne ko waa Mame Boye Diao ñu ngi remercier si jàppale bi nga jàppale Pastef. Mhm. kay bu dee d'accord ñu. loolu moo amul solo bu ñu ci war a communiquer. Mhm. mooy nit ko koy def moom amul benn responsabilité ci biir coalition bi. Mhm. bokkul ci biir coalition bi. yow gisoo Bougane mu mu wër Sénégal campagne ci législative yoo xam ne bokk si. jël ay oto pourquoi demul ànd ak waa coalition Yewwi Askan Wi. bokkul si coalition bi sëñ bi nag léegi moom ay oto moom essence am ne day wër day campagne kan lay campagnal waa yeewu askan wi. Mhm. pour xeex ak Macky Sall loolu lu si waay man da ngay dem gaare ko ne ko non bu ñu campagnal. Mhm. allié bu toog ba ngoon suba la élection présidentielle la ñu jóge mhm. nga toog ba mu des ay jours nga xëy suba nga ne bon tel liste soutient la candidature de Bassirou Diomaye Faye après dañu ñëw naa ko noo bu ñu jàppalee sox àndoo woon ak ñun non yaa ñu defoon lii yaa ñu lee jaru ko. xam nga looy def. li waa Pastef def PDS mooy nga bàyyi bañ ne meeting clôture nga ñëw ne voilà finalement on a pris la décision de voter Diomaye Faye mhm. loolu loo si dégg est-ce que Pastef dafa taxaw naan leen non bu leen ànd ak ñun mhm. ba ñu nom ba ñu falee président ba Bassirou Diomaye Faye président kan lañ ci nominé si ñoom mhm. on les zappe c'est-à-dire c'est des choses yoo xam ne amul solo soos ñu ko bëgg a jox kenn nominé wul Mame Diarra Fam voilà foofu lañ doon waxee nomination wala ñu ne diw Euh, dugal def na transhumance bokk na léegi si parti bi su boobaa nga mën a wax mais koo xam ne yow yaa moom sa sa sa sa big ak sa feuille toog def sa communiqué. sa hmm. soutien la liste Pastef jërul xuloo jërul xeex l'essentiel mooy ñoom la ñu nekk xam nañ ko euh, dañuy dem tout droit vers li nga xam ne moom moo di seen objectif. sans que hmm. dara euh, mën leen mën leen a divertir. Hmm. mais mais moom moo ba tey foofu nañu des ndax élection présidentielle dafa waxoon.

yow yaa jël sa décision man nit c'est-à-dire su ma demoon bay am ennemi su ma demoon ba koy am. Mhm. sama pire ennemi bu taxawoon ne man je soutiens Momo sëñ bi après je m'en fous quoi. Mhm. après yow soo ma soutenir l'essentiel mooy yow bu fekkee da si doon wut PDS ba ñuy teg xel fii. Mhm. dem si campagne bi ñëw na dañuy jàppale Diomaye président jàppale bi lan la jur. mais ñoom fi jëm xam nañ ko xam nañ ñan ñooy seen ay vrais alliés. xam nañ ñan ñoo loyal xam nañ ñan ñoo ànd ak ñoom démb bërki démb. xam nañ ñan ñoo tappale ba dernier moment ñëw naan dañu soutenir Pastef est-ce que dañ see nekk di wax wala non non bu leen ànd ak ñun déedéet soo amee xoolal sa ker sa quelque fois yow ma dolli sa dollil ma ko mu booleeg li ma am sama campagne sama victoire gën a leer. Mhm. su sama victoire leeree ba pare man la ma war a def xam naa ko jarul coow jarul xuloo jarul xeex jarul communiqué léegi nag soo ma nee posture maam jaara faam. Mhm. ambiguïté am na si. mais mais mais ëllëg mais loolu mais ëllëg ñooñu wax sa sa 54 pour cent si laa bokk. après.

Uh-huh. léegi militant yooyu moom jàpp na ne li tax Diomaye am 54 pour cent yi ñu bëri. Uh-huh. ci moom lañ bokk. Uh-huh. waaw léegi sëñ bi loolu kuy nax boppam c'est que dafa am yoo xam ne man dama jàpp ne jarut a sonn. c'est des détails xam nga affaire yi focus bi gars wax il faut que parfois ñuy focus kii waxam ji sëñ bi ba mu nax boppam. mais moom moo sa sa noonu dee moom tey bu nekkee sa. xarit aywa Sylla yow dafa mel ni déggoo li baax fi waxee mais man maa comprendre maa d'accord logique bi nga nekk nii. sa noonu démb tey mu bëgg nekk sa xarit man moom franchement je suis pas sa xarit lan mooy sa xarit sa xarit sa xarit mooy ki ngay toogal si même table non parce que moom imagine toi ki ngay toogal si même table waaw mais mais mais mais mais déglu expliquer parce que non déglu expliquer moom moo toog ci ruxam di nax boppam ne diw laa àndal dafa jël communiquer non déglu expliquer parce que moom ba mbir mi di metti dafa ni fi ña ñukku euh, Pastef dem yoonam yaa ngi dégg parce que ba ñuy voté li nga xam ne nag moo loi amnistie bi moom daf si d'accord deuxièmement bu ñu dàq li nga xam ne mooy élection euh, présidentielle daf si mm. d' accord loolu bokk na si lu gën a métti li nga xam ne moo di waa Pastef ginnaaw raay parce que ñoom nee nañu moom moo bokk ñu doon complot ba Mamadou Gueye ñàkk li nga xam ne moo di bakkanam si boobu la décision waaw léegi ñoom dañoo bëgg moom mu ne léegi jàppale tu Pastef ah peut gis <laughs> si laa la man euh, <laughs> li ma li ma li ma cest à li ma ko gisee uh-huh. mooy li ma la expliqué nii parfois dafa am yoo xam ne jarul polémique amul uh-huh. sens xam nga lu tax. <laughs> imagine ma ma defal sama parti man mu leer ma ne man sama parti diw ak diw ak diw ñoo ci bokk beneen waay nekk fee par exemple. Uh-huh. baara dolli mais su su su su su su burux lu woon ba sonn par exemple euh, investir wuñ ko. Uh-huh. mu dem toog ru xam ne Pastef laa jàppale dañ ko koy tere. loolu amul ci politique dama lay jàppale nga ne ko bu ma bu ma voteel amul musuma dégg ku ne parce que Pastef ci bu ma voteel. da ngaa jël décision nee nga mën nga bëgg a jàppale. Mhm. ça n'engage que toi mais l'essentiel mooy ki ngay jàppale bu ëllëgee moom xam na lan moo la ko taxoon def mooy dama la jox exemple xam nga exemple bi ma la jox rek dama jàpp dafa tënk situation bi. Mhm. mooy PDS xam nga Mame Diarra Fam benn nit la. Mhm. mam Diarra Fam benn jëmm la. PDS ci boppam formation politique ba mu bokk ñoom ñëw ñëw avant élection présidentielle yi ne Diomaye la ñuy jàppale est-ce que Diomaye ne non bu leen si man yéen doon nekk fii di voter ay loi dem na si yéen a doon def lii yéen a doon def lii déedéet déedéet du ko jar l'essentiel mooy yow dans ta tête xam nga ñi ñooy vrai yi xam nga ñii ñooy fookat yi. xam nga ñi ñoo dëggu si décision bi ñu jël ñii ñooy ñi nga xam ne tey dañuy teg xel. léegi boo dee ba fallu ñan lañ nominé ñan lañ àndal liggéey est-ce que gis nga kenn ku bokk PDS boo xam ne jël nañ ko. ne nominé nañ ko. mais xam nga bu dee présidentiel man mën naa jàpp ni sincérité amul. parce que ñoom lan moo tax mu àndoon ak boobu bu ñu àndoon APR dina xam ne carrément lii nekkul nekkul nekkul suite logique parce même pas deux jours ñoom ñoo wax ni carrément Amadou Ba fan la nekk APR moom moo guerre juge yi nekk fële ñoom ñoo def seen magu yi ba dàq li nga xam nag mooy élection yi donc tey jii si boobu bu ñu demoon soutenir APR. Amadou Ba vraiment c' ah, est c' est c' est comme si dañ ne transhumance la. non du transhumance. mais si ñu ngi remercier déjà mm-hmm. xam nga li gën a bon lan la. Mm-hmm. mooy yow nga ne da ngay soutenir ay benn parti lu mu dee dee dee xanaa nga am benn communiqué bu jógee ci parti boobu ne la kat ñu ngi lay remercier ci choix bi nga jël. Mm-hmm. gisoo ko juste le fait que ñoom ñu bañ a communiquer parce que tey yow si la xanaa yow boo yoroon mouvement. nga xool benn liste ne ñii lay jàppale. ñooñu dinañ def benn communiqué ne ah ñun kat dalal nañu tel mouvement moom nee na ñun lay soutenir ci élection yi. loolu mooy indifférence bi ma wax noonu. maanaam yow nga def ak ñàkk def laa yemale man maa la lijjantiwul Mm-hmm. indifférence total donc loolu man jeunes loo ñuy wax dama see ànd mooy kii la mu doon def démb ak bërki démb ànd ñu seek daf ñu doon xeex ak lii la doon def ak lee la doon def d'accord mais su demee ba moom mu jug taxaw ne man ñii laa bëgg jàppale mm-hmm. da nga ko koy tere jàppale bi ça veut pas dire xam nga sànq da ngay wax ne sa sa sa noonu démb bu nekkee sa xarit mm-hmm. sa xarit mooy ki ngay fréquenté waaw léegi si laa yow man fréquenté wu ma la toogu ma ak yow bokkuma ak yow même même table yow nga nekk fa nga nekk man ne fa ma nekk nga toog fa nga toog ne sama xarit nga dama la xam mën a tere mais l'essence xam nga fan la fan la mbir yi doon jaxasoo bu doon bokk nañ benn table toog wala ñu bokk di campagne. wala mu dugal la sama biir parti wala ñu am yenn relation yu fusionnelles su boobaa on ah yow de ki ngay àndal ni démb a bëgg démb moo doon wax lale mais yow amoo accès si c'est-à-dire amoo accès si appareil yu Pastef parce def nii. Mhm. suñu amoon lu leen neex duñ taxaw naan je soutiens Pastef si biir liste fii. wala ñu mer ngem si yeneen parti ñu jëleen dugal leen si biir baara doole ba mu génnee nu def dafa dem jege ji waat Amadou Ba ñu dugal ko si biir liste mhm. donc ñii la ñu bëgg dëgg-dëgg moo ñu dugal leen investir leen ci ay liste léegi nag bu ñu nee ba amuñu loolu ku toog ci rukkam nag ne sëñ bi man kii laa bëgg a jàppale mhm. loolu ça n'engage que toi yow la maanaam yow ngay dem ci élection si la xaw ma la xamoo ma. Mhm. wala maak yow on a pas de relation wala politiquement euh, bokkuñu gis-gis ci politique. yow ngay campagne sa campagne man may wër mbedd yi naan kaay leen voter Sylla kaay leen voter Sylla et eh, yow loolu en quoi ça t'engage. man mhm. loolu laa bëgg expliquer en fait. donc yooyu gëm naa ne ñoom yi ñuy wax noonu. Mhm. Euh, c'est vrai mais nag wax dëgg yàlla ñoom nañu def li ñu war a def l'essentiel mooy ñoom bis bu ñu accès bis bu ñu amee cette majorité à l'Assemblée nationale la ñu war a def xam nañ ko. Mhm. alors moom euh, moo ci euh, point boobu ni nees ba tey euh, mais ci côté APR ndax foofu aussi daanaka mbir maa ngi xaw compliqué diggante APR ak takk wàllu ak